tey jii ci invité matinal ñuy dalal góor a Khouma nekk secrétaire général bu union des routiers du Sénégal euh, Gora Khouma maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la nuyu sama nuyu bopp yow <coughs> euh, di ak sa ñi nga bokkal euh, rajo bi yëpp. Mhm. ak ñi lay déglu ñu ngi nuyu <coughs> auditeurs auditrices su réew mi yëpp voilà euh, Gora Khouma laaj bu njëkk buñ lay laaj nekk question d'actualité bi ñëpp di waxtaanee di drame bi am ci Sikilo euh, lu toll nag ci trente neuf personnes ñàkk seen bakkan ñu bëree jële ci ay gaañu gaañu euh, mu nekk drame bu rëy rëy boo xam ni dafa am ci kaw tali bi laal leen yéen ñi nga xamante ni yéen yéen ay transporteurs yi sa sentiment bu njëkk ci drame bi nga xam ne moo am ba fi ñu toll nii ñu nekk ci deuil national. waaw lay nekk na lu lu doy waar lu neexul expliqué nag neexul expliqué ndax euh, lu jur deuil national mooy wane ne la garaaw na euh, bateau Joola day dañuy waxoon na ci wàllu ndox lim def Sénégal musu fi am ci wàllu industrie Sonacos lim fi def musu fi am waane télé bi tey bi tamit euh, ci six kilos accident ñaari bi ci lim fi am musul am ci transport ci wàllu accident mu nekk lu métti nag loo xam ne lii kenn mucc ci xeeti ñëpp am nañ ci biir muy suba dee na ci biir jigéen dee na ci biir góor dee na ci biir électricien dee na ci biir couche yëpp pas dee ci biir. Mhm. mu nekkal mu kon Sénégal moo ñàkk. Sénégal ci boobu moo ñàkk kon loolu dañ koy kenn ko da koy jaale sa morom rek. Mhm. ñaanal leen yàlla yàlla xare àjjana loolu rek moo fi sa su nekk nii. loolu daal mooy li nga xam ne nii amul kenn ku ci mën a wax leen lu dul métti na métti nag métti rek li mën a wax. dëgg la euh, lu ni mel sax moo waraloon démb yéen ngeen amoon nag conseil interministériel ak premier ministre Amadou Ba euh, mu am ay euh, mesures yoo xam ni jël na jël ngeen ko foofu sax laay wax yéen ak gouvernement bi est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci mesures yooyu ak tamit ban jàngat nga ci am bi nga xam ni waxtaan ngeen ak Amadou Ba. waa xam nga Amadou Ba ñu ngi koy nuyu di nuyu yow moomu di nuyu sénégalais yëpp. Hmm. di nuyu acteurs routiers yëpp xam nga mesure démb ñaari présentation dafa am. Mhm. kii di directeur général bu transport terrestre dafa def présentation ñu xool ko kii di directeur bu ANASER def présentation ñu xool ko xam nga contexte bi dafa naqaree wax déedéet duñ ko dem duñ ko nangu. Mhm. ndax la ma wax rek ku ne du ko nangu. Euh, adduna jàpp la. te doo am benn lay sax pour mën a wax yenn yi. mais bi orateur yi jàllee ci pré ñaari présentation yi bi lire euh, point yi nga xam ne ci décision bi nga xam ne moom la gouvernement jël. am na ci benn boo xam ne bii bu fekkoon débat dafa ubbiwaat kon day ku mel ne man dama naa d'accord ma ci mais débat dafa tëju. Mhm. débat bi nag bu tëjoo ci lu mel nii laa mën a waxee li àndut ànd nañ ci lépp ak lu diis ak lu oyof yëpp dañ kenn nangu ngir xeex accident. Mhm. waaye benn poñ boo xam ne bii moom ñun xamuñu lu góor la kenn lu jigéen la. Mhm. bépp oto boo xam ne bi yaa ngi ci biir Sénégal. waaw. Dakar ngay passé visite technique. loolu moom lay wax ne loolu dafa mënul nekk. ndax centre moderne bi mu nekk Dakar. Mhm. ça fait plus de onze ans ñu koy réclamer implantation vers les autres régions amul. kon ñoom ñoo war a barlu bar baral seen yëf ba fexe ba centre yi ba euh, centre moderne bi am ci région yi mais bu ñu bëggee ne visite visite euh, euh, passé visite système visuel dootul amati. Mhm. kon ku bëggati passé visite technique ak région boo mën a dëkk il faut que nga ñëw ànd loolu dafa mënul nekk même bu baaxee sax mënul nekk waaye ñaata millions yi euh, oto ñu nekk ci àll bi mais dañu ne région bu nekk ñun li ñu proposé mooy région bu nekk na nga daan passé visite technique passé ko noonu Dakar nekk seen wàlla ñoom ñu nekk seen wàlla te gouvernement bi gaaw gaaw gaaw gaaw fexe ba monté ay si ay ay ay ay ay centre moderne ci yenn région mais ku bëgg wax ne. na oto yi jóge ci région yi ñëw Dakar xanaa kon rang bi Kër Mbaye Fall lay commencé jëm jë jëm Dakar lu mënul nekk dañuy xam ne mënul nekk poñ yëpp nag bu diisee nangu nañu bu oyofee nangu nañu mais bii moom mënuñu kaa ko moom. bii moom mënul nekk boobu moom mais est que jot ngeen cee wax euh, lancer ministre bi seen désaccord par rapport ak. monsieur xanaa yow déggoo li ma la dama ne. waaw maanaam si jotaay ba mm-hmm, mm-hmm. dama ne ca jotaay ba. Mm-hmm. ba ñu jox kàddu boobu génnewuñ lii. premier ministre moom mujjee wax. ginnaaw ñun bu ñu waxee ba pare. mais ba mu waxee nag ci la ci dogal yi ci poñ bii la benn poñ boo xam ne bii ku mel ni man de jaaxal na ma te ànduma ci mooy fu waaye mën a dëkk. Mhm. ci biir réew mi da ngay ñëw boo bëggee visité da ngay ñëw ànd Dakar passé fa loolu la ñu wax ne mënul nekk. lu mënul nekk nag man de daanaka mënul nekk ba boobu ciy néew doole li ci des nag moo naa dama ne poñ yëpp nag poñ yu diis la. Mhm. yu métti la waane la comme mën naa xeex accident dañ koy accepté mais poñ bu ci oyof amul ci. Mhm. bu ci am bu oyof amul ci. amul ci waane comme nee. bu ñu ko defee accident jóge fi te ñun ñëpp ñu xëy accident il faut ñu accepté ko ak limites yëpp ñu accepté ko mais poñ bii moom lu mënul nekk la lu mënul nekk la. Hmm, wax nañ ay sanctions formation chauffeurs yi moderniser parc bi est-ce que yëkkatiwaat ngeen waxum euh, permis à point bi foofu. Euh, ak Amadou Ba hmm. waaw xam nga ci poñ yi xam ne présentation ci tableau bi ñu doon def ñaar yooyu. waaw tudd nañ fa permis à point. Hmm. mais néewuñu léegi la dafa am point yoo xam ne dañ ne la am yoo xam ne dañ ne ah, du immédiat. yooyu la dégg point bi lu ñu si wax waaw. non lu ñu war a waxtaanee la. Hmm. loolu lañ ci wax dañ ne lay war dañ ci waxtaan. loolu nag toujours rek moom dañ ci war a waxtaan dañuy xaar waxtaan mais am na point ñoo xam ne dañ ne jarul waxtaan tey jii lay am léegi léegi léegi lay am. sur le champ mais permis à point permis à point moom waxtaan la mën a nekk te ñu ngi ci waxtaan ñu ngi xaar waxtaan. waaw Gora ñu gis ne yàgg nañu jël ay mesures parce que accident yi du guléet c'est vrai que drame bi moom nekk na lu métti métti mais tali bi yaakaar naa ne li muy euh, faat at mu jot bari na euh, accident yi am na ay jamono mu bari woon fi ba nguur gi jël ay mesures euh, mesures yooyu lee dara antu si gis nga mbir mi ngi continuer di am est-ce que pour yow lan la ñu a def ba li nga xamante ni moom mooy mbir mi daal di mën a am solution wala ñu appliquer bu baax a baax. Euh, li nga xamante ni euh, moom mooy mesures yi ngeen jël yéen ak gouvernement bi Gora Khouma maanaam loo xam ni du ay wax kese mais euh, ku ko làmb daj ko gis ko. waaw dama ne xam nga gouvernement yàgg naa wax. te du ko hmm, def. waaw ba ci ñu suñu négociation yi am ak moom. ak yeneen syndicaliste di ko am yeneen corps de métier di ko am ak gouvernement da lay wax la loo xam ne du ko def kon wax waxeet yàgg na ci administration. Hmm. loolu nag moo am ci boo ne mesures yi ñu daal jël. bari na mesures yi jël ci wàllu transport. am yuñ ci jëfee ak yoo xam ne duñ ko jëfee ñun ñi am na mesure yoo xam ne yàgg nañ ko wax duñ ko jëfee te ko kon du transport donc mesure ñàkk maanaam ñàkk respecté kaddu ñàkk respecté signature dafay yaatu ci Sénégal bu fekkoon ne doon nañ respecté signature kon ñun dinañ kontaan lool mais beneen liggéeykat bu dul transport bi di nga kontaan lool ñàkk respecté signature moom dafay yàgg fii xaw ma xëy li fi euh, léegi nag yokkute googule di cent franc ci litre bu ne mu nekk lu cher euh, fi ñu toll ni nag euh, ñi nga xamante ni ñooy dugg si woto yeek ñoom seen jàpp nañ ni paas bi boo moytul dañ koy yokk loolu lan nga ñu si mën a wax ci yokkute gi te est-ce que tamit paas yi dañ koy yokk. waaw mais loolu ñàkk. Hmm. xam nga état bëggul ko yokk paas. moo waral ñu bañ yokk paas mais ñun dañ la ko vingt cinq milliards delloo delloo nañ la ko. nga dugg ci renouvellement bi baa nga seet moo koy def mais ku yokk daal da ngay yokk waaw ku yokk da ngay yokk boo bañee boo bañee ku yokkal sa askan bul leen bul yokkal acteurs yi muy transport de marchandise muy transport de passager. Hmm. force suñu yokk ndax ku nekk xam ne ne li ñuy lekk saa bu ñu yokkee taxi yi boo dee ci marché bi fekk ñu yokk du du du transport rek moo war a yokk de. lépp luy wàññi dañ ko war a wàññi lépp luy yokk tamit ñëpp a war a yokk ànd noo yokk ko loolu moom nit mënul ne population mënul d' accord nañ yokk carburant bi ba pare chauffeur bu leen yokk benn transport loolu xel mënu kaa nangu te gouvernement mënuñoo jox xaalis ba ndax kenn du mën a yokk dama ne yokk moom ba gouvernement yokkee carburant. mënatul mhm. tere ku yokk paas. mënu ko mënu tere ku yokk aussi marchandise barème transport marchandise dañ ko defaraat ñu yokk ko barème tarif transport en commun dinañ ko yokk ko ku bañ ku yokkal askan wi bul yokkal acteurs yi. Mhm. kon yokku boobu mën nañu wax balay yàgg yéen da ngeen ko def ci seen côté. incha allah comme que daf leen touché directement. waaw incha allah rabi ndax dama yaakaar ne. Mhm. bu ci njuumte amut. dama dañu dañoo déggoo ñu ne gouvernement bi nee na avant fin d'année deux mille vingt trois. waaw Sénégal carburant kii pétrole bi dina commencé. Mhm. waaw ñun ñëpp ñu kontaan ci. waa ñi ngi janvier te te te bientôt deux mille vingt trois jeex waa kon yàq fa naa ne vingt trois milliards vingt cinq milliards yooyu. Mhm. ñu war ñoo jox delluwaat ko subvention bi mu doon góorgóorlu démb ba ki démb ba pétrole génn Sénégal nekk un pays euh, euh, producteur de pétrole ñu wàññi carburant bi moo nekkoon xalaat mais fii ak décembre deux mille vingt trois ñu ne carburant bi dina génn euh, pétrole dina génn gaz dina génn. damaa jàpp ne diggante bi gisuma fi lu jar yokk bien vrai que nag crise mondiale la. Mhm. kon munul échappé Sénégal munul ci échappé. waaye nag ñu tamit dañuy yokk dañuy yokk ba pétrole bi génn. ba ñu wàññi bi. Mm. ñu wàññi loolu moo mën a li ngeen di nar yokk dina bërim déet comme ça. amaguñ ah, ko ah, ah, Sénégalais yi mën a préparé wu du du man maay loo xam ne lii. mais est ce que tamit di si waxtaan ak nguur bi di ngeen si waxtaan ak Amadou Ba wala seen ministre. ma déggoon ne. Mhm. foofu laa bëgg ñu dem foo waaw moo war a wax ak ñun bañ teg yokk boo xam ne bii. Mhm. dañ koy cautionné. Mhm. mu nekk lu légal. waaw mais fekkee ne gouvernement bi nag nungul loola ñun dinañ koy yokkal suñu bopp même bu jaaruwul tamit dinañ koy yokkal suñu bopp ndax duñu liggéey jënd fukk di jaay juróom. Mhm. mais li gën nag mooy ñu toog ci table bi waxtaan ministre du commerce ministre transport consommateurs yi ñu waxtaan ba jubóo ci yokk. mais yokk ma mënul ñàkk il faut gouvernement xam ne yokk mënul ñàkk ñu waxtaan ci wàllu yokk mais bu gouvernement bi ne du may waxtaan ci wàllu yokk bëgguma yokk ñu dina yokk suñu bopp. voilà Gora Khouma Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci.